up in the morning time. Nico dille jox good vibes. Ndekki lu neex tàng jër. Sud FM mooy naa. Sénégal man la bay di bidéo bu bees yaa ngi ci émission Ndéki li ak maam Nicolas Imam Maodo Faye jërëjëf. Et voilà 98.5 le choix de la différence c'est la première radio d'information du Sénégal bonjour dellu di leen nuyu di leen bëggee di leen ziar di amati mbégte bu baax a baax a baax ni ñu koy amee suba su ne bu nu xëyee di àndandoog yéen ci seen émission ndekki li émission nandite yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi suñu soppe euh, di ñu dégloog di ñu bàyyi xel fu ne moo xam fii ci Sénégal wala ci bitim réew euh, ngeen rafetlu saa su ne liggéey bi nga xam ne moom la ñu dëkkee ak yéen boobook léegi euh, bu ngeen déggee ma ne boobook léegi mooy xam ngeen ne tey dañuy màggal 27 euh, ans bu Sud FM xam naa loolu oustaz Maodo Faye moom may gën a xam na nu koy tekkee ci ci wolof te dana ko wax léegi wante laata ñoo jëm fenn. Euh, puisque tey euh, kilifa euh, kër gi ci boppam la la ñu fas yéene daj dalal ñu dal di waxtaanee rajo bile puisque à événement spécial invité spécial mais oustaz Maodo Faye dellu di la nuyu di la bëggee di la ziar di amati mbégte ak di la ndokkale nag. wax maa ngi nuyu bu baax a baax di la ziar bu baax a baax di nuyu kilifa gi Baye Omar di nuyu bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu un peu partout ay taximaan yi ñi nekk ci marché Sandaga fu nekk rek. Euh, marché Tilène nit ñi mënuñu leen a fay ndax hmm. maanaam sawxi bi ñu am ci rajo bi wax dëgg yàlla ñun mënuñu leen a fay ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant également encore une fois le directeur général jërëjëf euh, oustaz Maodo Faye hmm. maa ngi wax ne 27 ans noo koy noo koy tekkee ñaar fukki at juróom-ñaar ñaar fukki at juróom-ñaar kon ci le Sud FM seen rajo tollu jamono yi euh, di la première rajo privée du Sénégal c'est un plaisir de savoir que mboolem média ak presse sénégalaise tey ànd nañoo maase di màggal bés bés bile wante it mbooleem sénégalais yi euh, ci fànn bu ne ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax ba na màggal 27 euh, ans bu Sud FM seen rajo ni ma ko waxee sànq rek à événement spécial invité spécial tey ki ñuy dalal mooy le directeur général de Sud FM seen rajo kon monsieur Baye Oumar Gueye gannaaw bi ma la nuyoo di la euh, bëgge di la sant ak di la gërëm bu baax a baax ci wuy si bi maa ngi lay ndokkale naan la bismillah bismillah Nicolas nuyu Maodo El Hadj Maodo Euh, nuyu kër gi yëpp nuyu auditeurs yëpp nuyu ñëpp ñi nga xamante ne fu mu nekk nii ñu ñuy déglu hmm. salaam. jërëjëf euh, euh, kon euh, Baye Umar Gueye di mm, invité Sud FM tey ci suba si xam naa ne. grand boobu bi kan moo la ko ah boobu bi rek gis nga ne fii laa fii laa xam nga bés bés bu tuuti borom lay tollool loolu la ñu wax te bésu Sud FM war ko tuuti loolu waral tey ma ma ma fël la foofee ah oustaz. waay macha allah waaw waaw bii de moom taarkal la bii moom. <laughs> <laughs> jërëjëf bi yow laa koy jox léegi léegi DG. Mm. mooy sunu sunu gan tey xam naa damay bàyyi rek nga introduire ak. ak benn question laata ñuy enchaîner. waaw fàttali mbokki auditeurs yi ak yi yi. Euh, émission bi yéen a ngi koy suivre live en direct en direct jamono yi ci sunu chaîne YouTube ak sunu page Facebook bismillah. voilà euh, ni nga ko waxee léegi xam nga benn fan ci weeru sulet bu ñu ko xayma day nekk léegi ñaar fukk at yàlla ak juróom-ñaar. Mm. après fii ñu toll nii tembe nag ki nga xamee ne euh, maanaam rajo bi day dox di dem. mais ki fii yàlla teg tey jii ñëpp ànd ci mooy ki nga xam ne moom lañuy ñu jàkkaar lool muy Baye Omar Gueye hmm. alors ñun li koy laaj rek mooy euh, gannaaw ba ñu ba ñu ba nangoo ak yaatooma saa moom vraiment xam nga moom da nga a rube waaye. <laughs> bàyyi rek bàyyi rek bàyyi rek tamit sumay question nag. waaw say question ak ubbeekoom ak itam woyefam ñëw fi bokk tey ci bisu tey bi Sud FM dafa nekk garab goo xam ne gii bànqaas yi maanaam reen yi. dafa sax ci Sénégal ba nga xamee ne pour nga déjjati ko boo ko bëggoon a buddi nit ñi sax ñoo naan la doo ko fi jëlee parce que nit dana samp dara dema dema dem ba mu yàgg sax loolu moom dootu ko moomati et d'ailleurs lui-même parfois il le dit il rajo bi ñun ñun ñëpp ñoo ko bokk. Hmm. parce que rajo bi nekku fii pour kenn donc sax moom moom la yàlla teg ci bopp bi donc loolu lu ma lu mat a rafetlu la beneen bi ci tegu tamit ci suba euh, directeur dafa am lu wax lu am solo dafa wax ne. Hmm. ndëgëni si daaw am na ko fi nekkoon mooy kilifa gi muy Babacar Touré. mu toog fii waxtaan ànd ak ñun accompagné nu ba waxtaan wi jeex mu dem yoonam pourtant ren tey dellusiwaatul mm-hmm. donc loolu man bi may def journal nii ci casque bi hmm. ça m'a peu waaw parce tamit xam nga nit nit rek la quoi n'est-ce pas loolu maa ngi ñu ko ci sant bu baax a baax léegi nag koy hmm. jox kaddu gi laaj ko fu toll hmm. <laughs> parce que moom n'est-ce pas <laughs> kon kilifa gi fu mu waaw léegi fi nga fi toll mooy rajo baa ngi nii yow yàlla teg ci bopp bi wax naa ko noonu léegi je le gis nañ également effort yi nga xamee ne wax dëgg yàlla ku ku ku ku kuy waxal yàlla xam ne def nga ko loolu moom tout le monde léegi nag dañ lay wax léegi foo toll tamit ba tey ci liggéey bi Maodo jërëjëf. Mm. Euh, liggéey bi du benn nit rek koy def mooy précision bu ma njëkk mm. bëggoon indi gannaaw li nga tàmmalee wax ji. Mm. suñu kilifa bi nga xamante ne moom la yàlla def ne tey bu ñu toogee fii bokk na ci pionniers yi nga xamante ne ñoom ñoo def liggéey bi. Mm-hmm. bu ñu mën a bu ma naan liggéey bi. mooy création wu Sud FM. Mm-hmm. liggéey na ko liggéey bu mucc ayib moom ak ñu mu àndaloon. Mhm. ñoom ñëpp ñu ànd di mhm. liggéey liggéey boo xamante ne tey bu ñu nee Sud FM. Mhm. ndaxte Sud FM dépassé na Sénégal. Sud FM Sud FM mu àdduna bi la. ndax gis nga diaspora bi mu ci tool suba ba léegi amul fu nit téléphoné wu si àdduna. da ngay dem ba sa bopp sax du amuloo deux secondes ndax message yi nga war a répondre ndax téléphone bi di sonné. donc dañ koy rafetlu ñoom tey. ñoom la ñu war a wax joyeux anniversaire gannaaw bi ñu ko waxee ne tey bés la boo xamante ne bés bu am solo la muy dëgg la naam 27 ans Sud FM 27 ans Sud FM un quart de siècle yoo xamante ne da nga ci dolli ñaari at yoo xamante ne liggéey nañ ko ba egg si fii. liggéey bi nag tàmbale ko ñeneen ñoo fi nekkoon di ko liggéey am ñoo xamante ne jóge na fi te ki nga xamante ne tam jóge na fi te dañ ko liggéey liggéey bu mucc ayib bés Ah, daaw mi ngi woon ak ñun ànd ak ñun si bés bi tettal ñu wan ñu yoon bi mm-hmm. mun ñu dul di ñaan yàlla suñu woom bi xare ko àjjana suuf oyof si kawam jégal ko ay bàkkaaram monsieur Baye Oumar Gueye mu ngi nekk directeur général de Sud FM depuis combien d'années depuis 95 depuis 95 95 mm-hmm. c'est ça fait quand même euh, ça fait quand même un moment mm-hmm. euh, ci sa liggéeyu directeur général bu Sud FM moo ci gën a métti ci gérer média bu mel nii rajo rawatina bu ñu la nee rajo bi moo moo moo fi njëkk sanc rajo privé ci xam nga dafay fekk d'abord ñu taataan la ñu taataan la ba nga xamante ñu tàggat la tàggat la hmm. bañ ba nga xamante ne lan liñ la dénk lan lay tekki hmm. d'abord mooy xam sens bi xam signification li ñu la bàyyil sa loxo mooy lan donc loolu mooy mission bu njëkk am solo boo xamante ne man si sama wàllu bopp gis naa ne tàggat boobu am na ñaareelu poñ bi mooy vaste chantier bi maanaam bi ñuy ñëw euh, nga may ma ma gërëm naan la ñaaw ndaxte le début était très difficile dama ko woo sama bureau ma fekk mu taxaw si trottoir ma ne ko viens me voir mu ñëw toog ñu toog ma ne ko lii la lii la lii la lii la li ñu naan feuille de route mm. feuille de bi nag bi ñu koy dessiner am benn cabinet bu defoon étude bi ñu toog ma ne ko kaay mu ñëw fekk président woowoon ma ñu waxtaan mu wax ma lan la namm ci kër gi amoon confiance lool dig ma dig waxtaan ak man loo xamante ni nit mësa du ko wax loolu nag mu doon lu am solo mooy li nga xamante ne teg nañ ko sa ndodd ñëpp di la déglu ñëpp di la xaar hmm. nga war xoolaat mbir mi sàmm ko hmm. war ko xoolaat ko ci biir en profondeur wala tegaat cahier de charge boo xamante ni dina tënku si li nga xamante ne mooy priorité mais priorité nag xam nga boo jàngee Maslow dafa lay jàngat li nga xamante ne mooy pyramide des priorités mm. nga ne priorité bu njëkk lan la mm. ñaari priorité bi lan la ñetteel bi lan la bu boobaa nag feuille de boobu si ngay tënku di liggéey ba egg si fii. d'accord xam nga euh, bu ñu nee professionnalisme Sud FM euh, kenn du ko nattable euh, ci mim réew activité mi réew sax ndax bu ñu tuddee Sud FM professionnel lañ lay njëkk tegal ci baat wante bo bokk na ci baat yi nga xam ne dañ koy faral di ga dàkkantalee aussi Sud FM dañuy wax Sud FM lan la doon xoolee ba ba ba gars yi raw ko ba mu toll fii mu toll en 2021 lan moo waral yéexaayu Sud FM ba nga xam ne yeneen rajo yi ñëw après moom yëpp daal di koy roppi jamono yi. lan ngay woowee roppi. mooy euh, bu sondage génnee yeneen rajo yëpp da raw Sud FM. xam nga dangay ngay xool ne sondage bi fu ñu ko tënk lan la bi ma ñëwee def naa sondage boo xamante ne information la information sur l'ensemble du territoire. Hmm. boobu kenn rawuñu si maanaam booy xool sax si poñ ñun ñoo jël première rajo d'information laa la bu ma la nee information waxuma la généralité yoo xamante ne ñun dafa am loo xamante ne du suñu sañ du suñu ay priorité du suñu ligne rédactionnelle ko du suñu ay tënkuwaay maanaam loo xamante ne lu dul information hmm. leneen li maanaam du suñu priorité bañ nañ ko ba naan chaîne d'information continue hmm. leneen loo xamante ne mën nañ ko jàpp tamit booy tënku li nga xamante ne président bi waxoon na ko ñun militantisme la woon culture la woon dafa nekk loo xamante ne boo koy teg du carrière cest à nga ñëw loo xamante nga ne fii tey fii lañu jëm dafa am ñoo xamante ne dañu jugoon rek am benn idée idéal teg li nga xamante ne mooy groupe bi rajo bi juddu ñuy dem di dem au jour le jour. après jamono après jamono day dox tamit. mais attention. jamono day dox tamit attention je te hmm. précise jamono mi ngi dox. Hmm. Sud FM mi ngi dox. Hmm. ndax Sud FM mi ngi méngoo jamono maintenant maintenant maintenant la précision de taille. mooy ku nekk ak sa doxin. Maodo Faye xam na lu ma koy wax ku nekk sa doxin mooy. Hmm. ñun par parloo wuñu ñun gaawantu ñun dañuy dem pas à pas. et souvent on ne parle pas de et deuxièmement la précision qu'il faut apporter. Hmm. dañu am doxilin. ñun suñu dox xëccoowuñu hmm. ñun suñu dox concurrencé wuñ pour concurrencer. ndax doxalin bi yéexul te seen doxalin. xëy na sa jàngat la. parce que doxalin doxalin dafa am dafa am noo koy defee. te noo koy defee ñun li ñuy wax petit xaw ma lan naka ñu koy wax si olof. maanaam toq toq mooy indi tepp mooy indi tepp tepp maanaam ndànk ndànk. step mm. by step. loolu dafay fekk ne xam nga lu gën a rafet si àdduna mooy lan. Mm. nga jóge A di dem Z. doo jóge A rek egg Z mais di dem A B C D. Mm. maintenant si dox bi doxalin bi dina am période boo xamante ni il faut nga gaaw aali kuul yàlla. am période boo xamante ni il faut nga def ndànk. parce que surtout dans le domaine de l'information nekkul loo xamante ne dañ koy parti parti maintenant dans le domaine des infrastructures dëgg la li nga wax am na solo xëy na waroon nañu mën a egg fu ñuy egg mais loo gis rek da ngay xool étape yi nga aw nous avons connu période très difficile une période éminemment délicate mm. où n'eût été ah. n'eût été la grâce d'Allah ah. peut-être sax Sud FM du nga nga baal ma eh, eh, rek eh, nga baal ma kilifa gi période boobu daan ci ñëwaat puisque bokk na ci li ñu bëggoon waxtaane da nga mhm. infrastructure justement euh, moo boo xam ne ci euh, réseaux yi jamono yi la question elle revient souvent euh, am bëri na ay yoo xam ne ñu ngi tasaaroo ci réew mi di wax ne ak ci bitim réew surtout ci réew mi di wax ne tel gox jotatuñu Sud FM lu tax tel gox amatuñu suñu antenne doxatul et cetera et cetera en termes d'infrastructure ak de renouvellement fan ngeen ci toll déjà un non renouvellement bi moom yow xam xam nga lu ma lay wax. fu mu nekk nii fii ak fan yu néew doo amati gox boo xamante ne Sud FM nekk fa te ñu may wax nekkoon fi 1994 ba tey xam nañu. pas bi nga xamante ne accomplir nañ ko. Euh, li nga xamante ne mooy euh, xam nga mbiru jaww ji la. dafa am loo xamante ne da nga koy maîtriser am loo xamante ne maîtriser woo ko te dem nañu ba fu mu nekk nii am na yu bëri on a externalisé l' aspect technique ça fait trois jours quatre on a décidé ñu lu ñu naan entretien yoo xamante ne moom mooy réseau bi mais bi ñu demee ba ci kaw gis nañ ni am na ay af yoo xamante ni il fallait ali kuréel ñu changé ko naam 94 ba tey il faut que ñu am ce qu'on appelle un fonds d'investissement nous sommes l'un des rares l'une des rares direction boo xamante ne nous travaillons sur fonds propres amul kenn ku jóg koo xamante ne yow on te dit defal sa sa sa budget pour wax ni lii c'est pour investissement à la limite même c'est du miracle les les gestionnaires savent que li ma lay wax nii sur le plan de la gestion du management amul kenn je mets au défi n'importe quel manager de venir me dire qu'il a travaillé sur fonds propres à partir des recettes générées mm. par l'entreprise s'il est investir amul mais c'est ce que attendez monsieur Faye c'est ce que nous faisons c'est-à-dire que amul kenn ku jóg ci adduna ne nous avons donné vingt millions à Sud FM mm. c'est faux amul et je le dis clairement mm. nous sur la base des recettes des recettes générées par l'entreprise nos propres moyens quoi et comment et comment faisons hmm. nous le faisons de la de la manière la plus claire hmm. c'est-à-dire bu dërëm duggee tey hmm. balaa dërëm boobu ñu koy laal dañuy xool priorité yi priorité am na dépense li nga xamante ne moom mooy transport bi chaque semaine oto yii di daw di jëli li nga xamante ne mooy journal si essence moo koy jël. Mm. ku su nekk chauffeur mu nekk yaa ngi sa carte. Mm. beneen priorité bi mooy la location. Mm. des fois dañuy def lépp pour mën si di ko def parce que je rentre le passif c'est intenable. je rentre pas dans le passif loolu dafa nekk loo xamante ne loolu tamit ñu ngi koy ñu ngi góorgóorlu fu ñu toll. donc c'est des situations yoo xamante ne à y voir de plus près. doo nelaw. Et quand je te disais tout à l'heure, je termine sur le, le côté mmh. infrastructurel, mmh. nous sommes entrés au pas à pas de régler ce problème-là. Mm. Socé Minimi, mm. il est le responsable technique, il ne dort pas. Demain, je l'ai réveillé presque à 2 heures du matin. Parce qu'il y a des choses, man, mm. c'est pas conforme à ma perception de la gestion. donc lu ñu la teg rek muy anomalie rek. Hmm. war ngañ ko apporter correction. te foofu la ñu nekk nii. d' accord xam nga ba bàyyi naa la nga développé par rapport ak li nga euh, gis ne euh, dafa dafa di ànd ak yenn doxalin yi xam nga nag. Euh, bu ñu waxee priorité ki ni mel ak i jafe-jafe ak difficulté mm-hmm. euh, difficulté moom def naa ñëpp koy dund euh, ci entreprise yëpp euh, rawatina entreprise de presse yi donc loolu mënta nekk lay. maanaam difficulté am am na wu seetlu oustaz nga jaabaal ma. waaw dama nekk posé question d' accord d' difficulté ñëpp koy dund ci ci entreprise yi mais difficulté il faut il faut faire face justement concrètement encore une fois. en termes d'infrastructure qu'est-ce qui est prévu à à exemple que auditeurs yi nga xam ne ay soppe Sud FM la ñu xam ne fii la ñu jëm suba non li ma la wax difficulté c'est inhérent inhérente à toute entreprise c'est pas ça le problème hmm. le problème c'est de voir comment ces difficultés arrivent naka lañ ko mën a comprendre leur causalité d'abord mm. analyser ko diagnostiquer ko pour que la solution que tu apportes puisse être une solution pérenne pérenniser la solution c'est le premier aspect c'est de comprendre c'est de diagnostiquer c'est de savoir quelle est la solution la réponse aussi adaptée à la problématique. L'autre euh, perspective que tu dessines, mm. que tu as demandé, c'est que li gën a am solo si adduna pour une entreprise qu'on appelle une radio li gën a am solo mooy le maillage du territoire ce maillage du territoire quand on venait d'arriver il fallait que ñu ubbi station yi nga xamante ni tëjoon na hmm. ñu tijji si Mbour fu mu nekk nii sax seen antenne d'ailleurs war nañ ko parce que dafa am tuuti anomalie hmm. ñu tijji si gas nañu ba sonn. oui ah mais parce que xam lu tax. Hmm. électricité dafa lakk li naan euh, carte bi. carte boobu pour ñu mën ko defar il faut ñu envoyer ko Italie. ñu defar ko indiwaat ko. Hmm. te c'est pas la première fois deux fois defar nañ ko indi ko et c'est bon d'ailleurs ko explique aux auditeurs une panne hmm. euh, d'émetteur le temps que ça prend pour que ñu réparer ko. parce que yooyu yëpp bu ñu demee à la long la perspective c'est que chaque station. am benn émetteur de réserve si la ñu bëgg dugg nii te moom la ñuy entamer nii loolu nag la première chose c'était d'abord ñu réouvrir Mbour ubbi nañ ubbi nañ ko dinañ ko gën a defaraat fii ak fan yu néew deuxième bi boo xoolee jurbeel aussi ubbiwaat nañ ko troisième bi Tambacounda ñu may dégg ubbi nañ ko booy xool tamit euh, li nga xamante ni Louga dëkku Maodo Faye ubbi nañ ko te yooyu toogoon nañ ko Louga ça fait ñaata kenn déggu ko woon donc yooyu yëpp ubbiwaat nañ ko léegi yi des moom mooy Matam moom mooy Kolda mm. moom mooy Sédhiou te ñoom ñu ngi doon déglu sud sax mais à travers d'autres canaux léegi émetteur Matam ñëw na émetteur euh, kii nu mu tuddati Kolda ñëw na mm. émetteur Sédhiou ñëw na moo wax naa Matam Sédhiou Kolda mais aussi Dagana Richard Toll toute cette partie là. Hmm. ñëw na donc kañ la mën a yaakaar installation yi. non écoutez je xam nga ce que tu peux dire. Hmm. c'est que ñëw na hmm. fi ak fan yu néew. dinañ ko teg incha allah bu neexee borom bi mm-hmm. ndax finalité yàlla moo ko yor ñu ngi xaarandi kon ba xam yooyee euh, kii euh, émetteur mais xam naa ne euh, population yi nekk ci gox yi goxaat yooyu wax innovation yi wax ko <laughs> waaw non innovation <laughs> loolu li dinañ dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat dama bëggoon juste justement ñu dellu si mm-hmm. ci période sud boo xam ne vous le yaa ngi ko doon souligner sànq mën a daan ci dellu si dafa bokk ci li nga xam ne gàllankoor na lu bëri doxalinu Sud FM ñu ngi fàttaliku benn jamono def naa yow Maodo yaa ngi fi woon jamono yooyu ñu tëj Sud FM. Euh, jël jëli journaliste kii yu. kenn xamul euh, voilà donc euh, na ci li nga xam ne gàllankoor na a baax a baax bu ma jumul liggéeyu Sud FM. non non pas tellement pas tellement. waaw mais naka ngeen naka ngeen jugaatee. Ah, en plus de encore une fois bàyyi ma kii a. dafay parce que daf ko dund lay def boobu ba léegi non non daf ko dund. xam nga mm-hmm. événement boobu mm-hmm. boo xamante Sénégal yëpp ko dund mm. muy fii muy bitim réew mm. mais man dama ko dund autrement ndaxte guddi googu nga xamante ne guddi googu lañ doon préparer li naan les chapeaux éléments yi mm. euh, Ibrahima que je remercie et a abattu un excellent travail dans le sud du pays mm-hmm. anniversaire bi tam anniversaire am la Ibrahima Gassama Ibrahima di woote di cogiter ak Mohamed Pascal Faye si li nga xamante ne moom mooy élément boobu ñu koy xaar guddi googu mm. man maa doon coordonné équipe du soir bi maanaam en terme de recueil des chapeaux pin pour préparer l' équipe du matin mm. bi ñu demee ba def chapeau yi ñuy waxtaan parce que c' était extraordinaire cette famille la boobu nga xamante ne sud mi ngi ko doon dund mm. parce que dafa amoon benn côté boo xamante ne côté bu spéciale la woon dañu doon waxtaan di liggéey maanaam ni ñuy fowee noonu noonu la ñuy liggéeyee mais bi ñuy liggéey ñu ngi chapeau bi Ibrahima envoyé élément bi on se disait mais ça voilà une opportunité pour l'État du Sénégal d'aller cueillir facilement Salif Sadio on se le disait comme ça en rigolant mm. on a laissé le travail pour l'équipe du matin je crois que c'est Liqueur qui devait faire le. waaw maa maa ñoo donc bi ñu ñëwee le matin weeru koor la woon. Mhm. man xamu matin bi man équipe du soir laa doon nekk di liggéey. matin bi man damay nelaw. c'est mon yal na ko yàlla yërëm qui m'a réveillé qui me dit mais tiens y a des soucis chez il faut y aller sangu sax defuma ko dama sol mu brosse rek solu dem. Mhm. bi ñu demee affaire bi commencé nag lu ñuy dem muy gën a tar. alors je me rappelle c'est je crois la Fall Aïssatou Fall elle était à Walf. Mm -hmm. heures bi mu jotee mu daw yu jol micro am elle faisait du direct et c'est l'occasion aussi ñuy saluer la présence de feu Sidy Lamine mhm. ce jour-là aussi ah, qui a démontré que la famille ñëw na ba dikk indi ay ndogu sax était véritablement mhm. une famille et même jour boobu mhm. des fois damay toog ni sax ndeysaan il aimait ce ce que je faisais parce que peut-être que je lui rappelais certains trucs actions yoo xamante ne moom neexu fu ñu gisoon rek it le saluer avec déférence nit ku baax la moom mm. tamit mm. ñu ñaanal ko moom tamit yàlla xare ko donc loolu yëpp dafay wane ne rek la presse est une famille mm. mais c'était tellement beau contrairement à ce que les gens disaient de vivre cette période là je me rappelle j'avais une sœur à moi qui était commissaire central à l'époque nuyu ma ma ne ko nuyu ma la et bi ma ko répondre mu ree quoi ma ne ko à la guerre comme à la guerre c'est que ce que vous avez voulu mais bi ñu demee ba si biir elle me racontait que des fois y a des des missions difficiles parce que moom xolam Sud FM moo si nekk man xam naa si dara mm. euh, kii photographe bi Thiey mm. ndeysaan ku mu bëggoon la ku mu bëggoon la ñoom tamit mm. donc Thierno mais tu dis pas bonjour à ta grande sœur ça c'est des anecdotes ma ne ko non non man je reconnais pas une grande sœur qui nous jette du tort ou des choses comme ça donc mm. c'était difficile hmm. bi ñu bëggee mu ne bu yeboo nga yuuxu def lu ne mais kenn jàpp la ñu toog mais bi ñu demee ba si biir hmm. président ne ma bàyyi euh, mu ne ma recule derrière on ne peut pas tous aller en prison hmm. keroog man maa téye ñaari portable am c'est tellement émouvant et extraordinaire li ma lay wax ñu dem ba si biir à dix xawma ñu ne on nous remet le signal de Sud FM ñuy waxtaan parce que tamit ku doon ku doon waxtaan ak man la te yàgg na de li ma lay wax nii simple reporter laa woon bi ñuy jël bi jël décision bi du ne man maa ko wax de mais moom moo am décision wu attaquer l'état du Sénégal par voie de fait il a appelé ndeysaan un excellent avocat Khassimou Touré xaasimu di ñëw ak toge bi c' était tellement beau cette image que taximan yi nekkoon place de l' indépendance yëpp di klaxonner. la l' plus n' plus la la la aucune alternative que de céder. Hmm. bi ñu demee ba hmm. si le moom laa lay wax Aïssatou Diop Fall est venu vers moi pour faire le 18 heures hmm. il dit ah tiens euh, on est en face de notre confrère il a le visage grave et tout je dis mais non c'est que moi mon problème c'est pas le cas je pensais qu'on avait affaire avec un État qui savait comment travaille le journaliste. Mm. Depuis la collecte jusqu'à la diffusion, en passant par le traitement de l'information. Nous n'avons fait que traiter l'information. Mm. Et quelle, a été particulièrement la problématique qui nous a opposés à l'État du Sénégal mm. C'est que quoi Ils déclaré que Salih Sadio est mort. Nous, on a démontré que Salih Sadio n'était pas mort. Et c'était tellement beau en termes de conflit d'intérêt parce que ñoom li seen intérêt ñun du suñu intérêt étouffer information on a démontré par le biais de Ibrahima Gassama qui a est allé jusqu'à retrouver Salif Sadio pour livrer la vraie et la bonne information aux Sénégalais ñoom ñu commencé bi après tribunal tu connais la suite donc c'est ça a été quand même du point de vue de la démonstration, du point de vue de la continue et de la mm. posture incarnée par Sen Radio, mm. c'est presque jurisprudence la loo xamante ne day toogaat ci jàngatu Sénégal pour wane ne comment doit travailler une entreprise de presse dans des moments aussi difficiles maintenant nous avons fait face à une difficulté majeure mm-hmm. difficulté boobu nag mm. moom la ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi gérer ba ñu egg si fii si gestion boobu dina euh, de Abdoulaye Ndiaga Sylla aussi mhm. il faut aussi rendre hommage à cet homme mhm. ce grand ce grand homme aussi. c'était defe naa 17 octobre 2005. oui xam nga xam lu am solo. Euh, ci xam nga yaa ngi dugg yoo xamante ne man. je n'ai même pas continué sur cette lancée. parce que dafa nekk loo xamante ne mhm. on a on des grands. yoo xamante ne bu liggéey jotee. taxaw nañu pour liggéey. Hmm. te wan nañ yoon boo xamante ne pour liggéey te ba tey ñu ngi fi di liggéey ak ñoom. am na solo bu baax a hmm. baax euh, moo tax ma bàyyi la nga euh, développé loolee ngir euh, nit yi gën a mën a ràññee ak xàmmee kon ñi nga xam ne peut-être dañuy faral di wax ne su Sud FM ne s'est jamais relevé de cette période là kon être ñooñu juum nañu jamono yi. ñu en fait non xam nga bu ñu su Sud FM ne s'est jamais relevé xëy na dafa am étape période bu ñu ko waxee ñoom. Hmm. mooy période bu metti bi. te tamit période boobu ñu fi nekkoon dañu leen di dañ leen di ñukkeel ku mel ni Omar Diouf Fall liggéey na lu mu mën. Mhm. période boobu man maa nekkoon rédacteur en chef te xam naa ne mhm. lépp lu mu mën def na ko. Mhm. loo xamante ne yombul dara. dinañ toog am na benn jour dañu toog un vendredi. mu am ñu bëri ñu doon dem. mu ñëw woo ma bureau ñu toog di waxtaan. keroog bi ñuy teg suñu jë euh, si suufu. pour julli vendredi boobu métti woon na trop. ñu teg mu teg si sijaada ma teg suma sijaada. ñu julli vendredi alors que le lendemain je devais aller sur Paris. mais noonu laa ko formé. Uh-huh. ma ne ko grand mu ne ma naam ma ne ko on va relever le defi uh-huh. ñu toog di ko ñefe donc kooku tamit. Mm. 27 ans 27 ans moom la. léegi li ñuy faral di wax euh, li ñu si di faral di wax mooy euh, bu ñu nee média sénégalais d'habitude di nga gis rajo la télé nga ne rajo bi moo ànd ak tel régime rajo bee moo ànd ak opposition yéen euh, ñu ngi leen di reproché ne opposition mënuñoo yaakaar ci yéen parti au pouvoir mënuñoo yaakaar ci yéen léegi bu ko defee kon ñu bari di naan mais seen i jafe-jafe kenn tegu leen ko ku dul seen bopp ndax yéen faru leen fenn loolu. ma raconté ma raconté la man maa jël yónni reporter foofu on a fait direct. Hmm. intégralité discours Ablaye Wade. bu nekkoon ñeneen ak li ñu Ablaye Wade def si àdduna. Hmm. fu mu taxaw duñu fa taxaw. Hmm. keroog laa jot kenn benn appel si ñoom ku am solo. woo ma ne ma ñun di dañoo juum mais wan ngeen ñu ne yéen vous de vrais journalistes. maanaam par parloo bi Macky Sall di ñëw en 2012. dafa am sama benn grand dafa nekk yaram bi dafa sutante ku bari xam-xam mu ne ma vous savez pourquoi je n'aime pas cette période de notre histoire démocratique mu ne ma parce que le caractère partisan prédomine te bu mu moytuwulee 2012 laa lay wax de bu ñu moytuwulee moo nar a naxasal naxasaay li nga xamante ne mooy suñu démocratie donc ñun suñu wàllu bopp hmm. ñun loolu mënuñu ko suñu ADN la c'est-à-dire que aujourd'hui l'équilibre dans le traitement de l'information une information équilibrée maanaam par parloo bokkul ak suñu mbir àndul ak suñu mbir te parce que bokkul suñu perception bokkul suñu éducation te bokkul ak suñu gis-gis Maodo mën na témoigner. lu koy wax xam nga dafa wax lu am solo léegi ci bi mu koy laaj ci infrastructure yi. Mm-hmm. gis nga bi ñu nekk ISIC dafa am benn professeur bu ñu doon jàngal mu ne presse bi léegi ay homme d'affaires. Mm-hmm. ñooy ñëw indi seen xaalis dajaloo def groupe. pour mën a liggéey. moom mu wax léegi ne moom ci ci fonds propre boppam lay demee. Hmm. loolu c'est fondamental. après jamono business la ñu nekk aussi. oui mais justement hmm. oui mais mais même bu dee loolu moom li mu wax nii. Hmm. mën nañ cee jàngat ne jàmbaar la parce que ñi nga xam ne ay ay groupe presse yoo xam ne ay ay businessman ñoo koy dajale ñëw mm. liggéey te sax te sax mooy loolu mm. moom mu nekk benn sénégalais rek nii di dem ci ay fonds propres am mm. sa waay loolu sama il faut ñu saluer ko il moom <laughs> moo la gën a xam mbir mi <laughs> <laughs> exactement 11 heures et 40 minutes yéen ngi ci ndekki li émission nandite yi ñu nekk en direct suñu ay plateforme digitale euh, bu ngeen duggee YouTube jamono yi suñu chaîne Sud FM seen rajo wala ngeen dem suñu page Facebook daa ngeen fa fekk émission bi en direct fàttali fàttali leen ne tey maak oustaz Maodo ñu ngi dalal euh, monsieur Baye Omar Gueye di directeur général bu Sud FM seen rajo à l'occasion des 27 ans de Sud FM mi nga xam ne tey. 1er juillet euh, moom la Sud FM euh, di màggal Sud FM am 27 ans jamono yii la ci diggante bi am lu bëri lu fay xew ci wàllu actualité. moo xam ci wàllu benn yoon rek la ñu mas a yóbbu police waaw waaw loolu loolu weesu nañ loolu ko <laughs> mais ci diggante ak xew-xew yi ni muy xewee ak na nanu koy toppee. nan ko gisee puisque ñu bari dañuy faral di ñaawlu justement le fait que y a beaucoup de dérives euh, waxatuma sax ci réseaux sociaux yeeg yooyu mais ci média yi nga xam ne euh, dañuy wax ne média traditionnel la sax léegi dérives yooyu dañu koy nemmeeku ci ñi nga xam ne dañoo mën a wax ne am nañ ou amuñu formation ci wàllu journalisme ak yooyu. waaw xam nga tamit euh, booy xool dafa am lu ñu naan coaching. Hmm. xam nga man c'est pas pour rien fu mu nekk dama naan baaba baaba tamit. Euh, koo xamante ne macha allah si jàppale bu muy jàppale baaba Diop mm. te xam-xamam si mbirum journalisme mm. kenn du ko natable mm. Baba toujours day nekk si xale yi pour seen formation mais si biir xale yi il faut que tamit ngay détecter ñi bëgg jàng ak ñi bëggul jàng il faut que tamit ngay xam réflexe yi lan la ñu mën a euh, aptitude yi lan la ñu mën a développer ak lan la ñu mën am na ñoo xamante ne il faut nga yéex ci seen biir am na ñoo xamante ne soxlawuñu loolu il faut mu gaaw mais am na ñoo xamante ne ay homme d'affaires lañu. Hmm. su ma la nee homme maanaam ñoo xamante ne ils cherchent dañuy ñëw am seen propre carrière plan de carrière hmm. ñooñu mënoo si ñoom dara. mooy rakkinca mooy business mooy. ñooñu du ñu yàgg si rédaction. Ah, non man il m'arrive de dans bureau bu ma gisee xale. Hmm. xool ko benn yoon rek dinaa xam nax kii li la yàgg fi wala du fi yàgg. Mm. selon sa motivation. wala ok effectivement. ok di nga xam ndax kii dafa ñëw pour régler benn problème personnel am. Mm-hmm. wala du fi yàgg te tamit ne da ngeen di njukkeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy direction mm. yi presse yi. pourquoi ma ne parce que gis nga bu ñu ñuy ñëw di ut liggéey. Mm. laa ilaha illallah à la limite da nga naan li li ma siis moo naan siis doon wax. ñu gën a mën ut liggéey lañu. wante bu ñu xasee ba am liggéey des fois di si gis loo xamante ne doo ko ñeme wax mm-hmm. moo tax toujours da ngeen di rendre hommage ñi nga xamante ne mm-hmm. man du ma toog bu ma ne euh, stagiaire maa ngi si jël lu ma mën ba léegi dama ne non au moins jël leen kenn bu kenn demee keneen ñu parce que tamit xale yi dañ toll si mm-hmm. ñu leen di jël stage ñuy leen taataan pour que ñoom seen wàll bopp tamit li nga xamante ne mooy euh, seen euh, priorité ñun tam ñu bàyyi si xel mën a def te loolu dafa am solo lool. Hmm. pourquoi dafa am solo nit ki boo ko jàngul. Hmm. du du tari. Hmm. te bu tariwul li muy génnee du doon lu baax donc li ñu naan formation bi et formation boobu dañ koy renforcer tout le temps du nekk formation am da génn école rek mu ne jeex na chaque jour surtout lu mel ni liggéeyu terrain. nga xam ne toujours tu apprends. tissage boobu ngay def tous les jours c'est continu donc dérive yooyu ngay wax. c'est des dérives yoo xamante ne waxuma ñun fii kenn du dérive de. Mm-hmm. mais dina metti trop xamalu tax. Mm. c'est le filtrage de l'information. maanaam dinañ dem ñoom def seen ay nu mu tuddati liggéey ba ñëw. Mm. mais dañ koy corriger ndey Marème loolooy liggéeyam. Mm. tout le temps du nelaw. di corriger texte yi moom ak ñoom Issa ñoom ñëpp rédaction boo xamante ne. il faut le le rendre aussi ñoom seen wàll boobu si liggéey bi nga xamante ne. ñu ngi koy def. jigéen lañu naam. mais jigéen yu mën góor lañu. macha allah si liggéey bi nga xamante ñu ngi koy def. Mm. maintenant dérive peut-être sax mënu si ñàkk mais. Mm. niveau de dérive bi moom moo am solo bu nekkee dérive boo xamante ne mën nañ ko corriger rectifier ko mm. mais da ngay mais toujours dañuy wan nit ñi nañu par exemple su ma naree wax ci nu mu tuddati mooy euh, Nicolas. mais balaa may wax si Nicolas. mais naa ko téléphoné d'abord. laaj ko ko am naa information. laaj ko mais. bul jël information yi di ko traité pour recréer un problème personnel et surtout Sénégal c'est ça c'est trop personnalisé et ça vraiment moi ça me dérange énormément le débat est trop personnalisé même du point de vue seen question yi ngeen di poser moom laa souvent Maodo hmm. nit bu toogee ngeen ne ko Nicolas nee na nii loo xalaat si Nicolas <laughs> loo xalaat si wax jooju loolu mooy mu attaqué Nicolas <laughs> tu vois donc yow yow yow Maodo wax na lool bi muy wax wax na ko nekku fi eh. nga ñëw man ma ñëw ngeen ne ma loo xalaat ci euh, Maodo Faye lu mu wax. <laughs> su nekk koo xamante ne dafa bañ Maodo Faye wala daf ko wa. mu sotteeku si moom nag ba def dérive. tel bi en soi. ñu mm-hmm. jël am idée bi. Mm-hmm. teg ko si table bi idée boobu loo si xalaat. Mm-hmm. jarul sax diw. idée boobu ñu ngi koy développer de plus en plus. lan nga ko lan nga si xalaat waa ji wax xalaatam mais toujours nga contrôler aussi yow mi poser question bi. Mm. mu bañ a tooñ jàmbur. n'est-ce pas parce que sa responsabilité daf am solo. engagé wu am na solo Baye Oumar Gueye euh, directeur général de Sud FM le temps mi compté am na euh, li ma dese ci simili bëreetul euh, te am na benn laaj boo xam ne dafay dellu si waat souvent sénégalais yi di ko laaj. boobu bu may tàmbali maa ngi la naan ñu bëri ñu ngi naan Sud FM lan la doon xoole ba yeneen rajo di ko raw waane it foofu la sénégalais yi toll ne Sud FM lan la doon xoole ba ay tele am fi te Sud FM mënta am tele boobu ba léegi te saa su ne mu ngi naan nit yi première rajo privé rajo privé lu tax amu leen télé xam loolu li ci président waxoon doy na c'est-à-dire euh, lu jot yomb te euh, télévision doo jug rek créer ko dafa am yoon da nga koy préparer te nit itam dañuy fàtte ne Sud FM bo su ma nee moo njëkk am télévision la LCA. Hmm. mais fekk na boobu kenn amul woon télévision. Hmm. mais télé boobu bi ñëpp xam nañu lu tax télé boobu. Hmm. continué donc li am solo mooy lu ñuy préparer la. bi ñu ñëwee def rajo moo nekkoon priorité créé nañu rajo. Mm. ak li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi mu jur ak fi ñu aw yëpp mais bu jotee rek yomb te je pense que yàlla baax na. Mm. est que yéen a ngi ci jamono yi yéen a ngi ciy liggéey. dañ ko bàyyi noonu rek su jotee rek yomb. <laughs> d'accord pour tëj waaw xam nga pour tëj maa ngi koy ñu eh, que yow ñu ngi koy sant bu baax a baax ci réponse yi nga xam ne apporté na ko xëy na peut être euh, qualité sonore bi wax naa ne léegi ñu ngi ci. xam nga yu bëri bëri même tey ci suba. Hmm. ay tuwaawoon yooyu dañ dañuy jàpp rajo bi mais parfois qualité sonore bi loolu problème mu jaww ji la comme ni nga ko waxee léegi. Hmm. mais comme ñu ngi ci nañ wax auditeurs seen xel dal. te xam interférence yeeg yooyu waaw mais loolu tamit nga may ma boo xoolee le le 7 là le 98 point 7 là. waaw bon vraiment day dugg ci biir. j'ai déposé plusieurs fois une plainte auprès de l'ARTP. ah bon da nga déposé plainte. plainte plusieurs fois. xaaral xaaral. plainte plusieurs fois au niveau de la l'ARTP. Ah. parce que dafa am 98. point 7 bu collé ak. 98 point tout le temps dafay dugg suñu biir. Hmm. tout le temps tout le temps. ok et ni ma koy ni ma koy corriger sax mënuma ko wax fii. Hmm. mais tout le temps saa yu duggee j'appelle pour qu'on mu ñu ñu retracé waat mbir mi. waaw parce que secteur yu secteur yu bëri Dakar dañuy faral di casse. tout le temps et je pense loolu dinañ ci jugaat. loolu dinañ ci jugaat pour mu tàkk. parce que warul plainte boobu fu mu fu mu ci toog. non yàgg na li ma lay wax nii. Hmm. ñu envoyé équipe. pour que ñu dem fu nekk xool. Hmm. mbir mi naka lañ koy regle hmm. mais dinañ si jugaat loolu aali cour yàlla dina dakk parce que mënatul continuer. li des mooy ñun. il fallait que ñu réussir suñu ay installation ba nga xamante ne day mucc ay pour que tamit ñu si bopp du ñu am kenn du ñu critiquer ne ne am na loo leen war a am te amu ko mm-hmm. maanaam ñu am numériser ko de telle sorte que mm-hmm. léegi li ñu naan les standards là am nañ ko mm-hmm. te loolu am nañ ko léegi table beeg lépp lu naan satellite yooyu yëpp am nañ ko léegi. Hmm. bu boobaa ñoom seen wàllu bopp dinañ ko def. Hmm. bu ñu fa eggee incha allah. incha allah kon loole danaan topp ba xam euh, fu muy mujjee par rapport ak euh, problème mu euh, fréquence ak yenn yi nga xam ne ci wàllu fréquence gars yi dañ dañu ci poñe bu baax a baax ba nga xam ne qualité sonore bi dafay des ci yenn gox yeeg goxaat yi puisque ñu bëri dañ koy faral di souligner exactement 11 heures et 49 minutes xanaa di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ak di leen ndokkale mbooleem mbokki auditeurs yi parce que dafa naa tey dama ko waxee sànq ci ñaareelu pàccu émission bi euh, Sénégal a aye parce que Sud FM bu ayee moom euh, amul rajo amul télé amul kenn maanaam. Sénégal Nicolas foofu nag balaa ngay tëj. Mhm. ma remercier confrères yi. Mhm. ndax euh, suba ba léegi. amul façon message bu ma jot. ñu ngi yónnee message fu ne. Euh, yaa ngi doon wax léegi Alsaan Alsaan si kër gi la bokk. waaw Alsaan Samba kenn si kër gi la bokk. kenn du ko si kër gi la bokk. kenn <laughs> ñëpp seen wàllu bopp journaliste yi. si kër gi lañ bokk. ndax si ah, famille la mais famille bi si biir famille la. Hmm. si presse sénégalaise la. muy grand yi ñun ñëpp ñu leen nuyu ku si nekk si kër euh, santam di nuyu aussi. Hmm. ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon bu ma naan ñi nga xamante ne ñoo fi nekk. Hmm. moom mooy Abdoulaye Ndiaga la moom mooy magu kër gi vieux Savané it euh, moom si wàllu boppam ñu koy nuyu di ko gërëm ndax ku ñuy encouragé la si liggéey bi ñuy def di nuyu Sidi liggéey di nuyu Abdoulatif Coulibaly bu baax a baax na suñu mag la moom tamit Oumar ju Fall aussi suñu mag la ñu moom tamit ñëpp ñi nga xamante ne ñuy bokk si liggéey bi mais les anciens aussi il faut que ñu bay bàyyi leen xel ndaxte ñoom ñëpp nekk ñu fi mais ñu ngi fi ndax bés bu nekk ñu ngi woote bu amee jafe-jafe ñu ngi lay woo ñu ngi lay gunge di la conseiller di ànd ak yow si liggéey bi auditeurs ñoom bës bi seen bës la mm-hmm. ndax seen rajo le slogan bi nekk mm-hmm. su FM seen rajo donc bravo aux auditeurs mm-hmm. bravo aux correspondants ndaxte Sud FM ñoom Maodo Faye dañu foog ne Sud FM Dakar rek la <laughs> Sud FM du Dakar rek de boo demee Kaolack Awa Thiaw mi ngi fay liggéey liggéey macha allah mm. nga dem Tambacounda Boubacar mi ngi liggéey liggéey bu am solo mm. nga dem jurbel euh, aadama Ndiaye mi ngi liggéey liggéey bu am solo Kaolack fàttewuma Kamu euh, mi ngi liggéey Lamine Gueye Saman Louga nga dem tamit Ziguinchor ex un excellent Ignace Dey qui a ba un travail d'orfèvre avec euh, nu mu tuddati équipe am nga dem tamit euh, maanaam Saint-Louis Mm. ñoom tamit euh, ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib mm. donc fépp ci Sénégal fu Sud FM nekk rek mm. ñoom seen bopp ku si nekk si turam ak santam ñu ngi leen di encourager bu baax di leen souhaiter joyeux anniversaire di souhaiter di souhaiter joyeux anniversaire les chauffeurs ñoom tamit ci liggéey bi lañu bokk le service de sécurité ci liggéey bi lañu bokk maanaam di ñaanal comme ni ma la ko waxee ni ñu ko tàmmalee suñu président yàlla xare ko àjjana suuf heure ci koom di ñaanal xamante ne tam fii la nekkoon Fall. Mm-hmm. muy nu eh, mu tuddati eh, Max Sowaay. waay Max. Euh, Amath euh, Chérif El Walid Chérif El Walid Sey. ñëpp ñi xamante ne ku juum juum. si groupe bi la nekkoon di liggéeye nag ak ñun. ak Thierno Sow ñu leen ñaanal mu tuddati mon photographe préféré. Thié euh, Thié ñoom ñëpp ñu ngi nuyu di leen sant. Mm. di ñaan yàlla. vraiment oyofal su seen kaw bu baax a baax. si wàllu boobu. am na solo bu baax a baax monsieur Baye Oumar Gueye directeur général de Sud FM Sen Radio encore une fois merci. temps mi ngi atteint attention ah oui le temps il file hein merci à l'ensemble de nos partenaires euh, qui vous ont permis de suivre l'émission leader Ndekki li émission nandite yi merci à l'équipe technique merci à l'équipe digitale passez une bonne journée et je vous souhaite à tous où que vous soyez un très heureux et joyeux anniversaire en compagnie de la première radio d'information du Sénégal Sud FM Sen Radio salut. dégg li émission nandite yi